asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ñoo ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa suñu kàddu gi fekk leen ci jàmm eh, tey nag maa bëggoon a am waxtaan wu ndaw bu ma def eh, xam naa ci tubaab ñu koy wooye déclaration Euh, li ko waral nag lenn rek la mooy ku ne xam na ne dañoo nekk ci weeru koor weeru koor di weer woo xam ne suñu borom subhaanahu wa moo ko seppi ci biir weer yi euh, jox ko ngëneel loo xam ne jox ko weeree ca des comme ni mu seppee yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ci biir mbindeef yi comme ni mu seppee màkka ci biir barab yi comme ni mu seppee bisub àjjuma ci biir semaine bi noonu la yàlla seppee Eh, weer wii ñu nekk ci biir weer yi waaye ni mu seppee weeru koor ci biir weer yi noonu la seppee eh, fukki fan yii ñu nekk nga xam ne bisub tey ci guddi lay tàmbali eh, mu seppi ko ci biir weer wi moom itam jox ko ay ngëneel ci biir fukki fan yi tamit mu seppi ca ab bis boo xam ne daf ko làq ci biir fukki fan yi moom itam jox ko ngëneel loo xam ne joxoo ko fukki fan yëpp muy bisub laylatul xadar loolu bu ngeen gisee ma jiitale ko noonu mooy li ma bëgg a wax euh, mooy yàlla am na téere yu bari yu jóge ci moom jaar ci ay yonant waaye téere yooyu yëpp téere bu ci gën a kawe te gënal ko te ëpp ca njariñ loolu àdduna ak loolu àllaaxira euh, mooy alxuraanul karim ndax alxuraan suñu borom. da ce def lépp euh, maa farat naa fi kitaabin min sayin euh, amul lenn loo xam ne rek maanaam lu nit di aajowoo la ci saahir ak ci baatin lu dul yàlla dugal na ko ci biir alxuraan euh, ñu nekk nag ay jullit yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy suñu yonent te ci hadisam yi dafa wax ne ñaan mooy ngànnaayul ab jullit ngànnaay nag soo ko tuddee rek sa xel dana dem ci xeex kuy xeex nag dafay soxlawoo euh, nga jël ngànnaay yenent bi ne ab julit buy xeex ngànnaayam mooy na jël ñaan def ko muy ngànnaayam loolu moo waral euh, waxtaan wi may def ak yéen ñaan gi nag weesuwul ñaanal réew mi réew mii nga xam ne ñoo ko bokk nekke muy réewum senegal ñaanal ñooñ réew mi ñëpp ñu ci nekk ak langue boo mën a yor ak couleur boo mën a yor ak xeet woo mën a bokk ak ngëm-ngëm boo mën a am ci diine ak ci politique ak ci lu dul politique ak lépp képp koo xam ne doomi Sénégal nga nekk ci biir réew mi wala nga nekk ci bitim réew ñu ñaanal la yàlla ci alxuraan ji ñuy bëgg a woote di ko jàng waaye tamit ñaan gi dafay am euh, particulièrement tamit lu ko tax a jóg ak ku ko tax a jóg euh, ki ko tax a jóg tamit dafay delluwaat ci jëmm joo xam ne dafa soxla woo ñu ñaanal ko moom ak aw nitam muy euh, usmaan Sonko euh, li tax mu war ñu tudd ci turam settee ko ci biir li ñuy ñaan mooy bu ma waxee ne ab xeex lañ nekk te yàlla daf ne booy xeex da ngay jël ngànnaay te ngànnaayul jullit mooy ñaan ku ne xam na ne bu ma nee xeex rek euh, ku nekk dina xel xelam dana dem ci moom ndax dafa miritoowee wala mu soxla woo ñu def ci moom ñu defal ko ñaan ñaan gu wér euh, ci digganteem ak boroomam ñaanal ko ci digganteem ak aw nitam ndax bu fekkente ne yàlla dafa dogal jëmm di mbokkum jullit di mbokkum sénégalais euh, di mbokkum patriote di mbokkum ngëm-ngëm di mbokkum xalaat di mbokkum euh, bëgg-bëgg moo xam ne dañoo bokk di dund ci réew mi am nañu faatu ñu bari moom muy doog a judd am nañu faatu ñu bari ñun ñuy doog a judd ndegam yàlla moo boole ñu bokk nekk ci àdduna daje fi ci même temps yàlla dajalewaat ñu te ku nekk yaa ngi xool yaa ngi gis euh, nattu yi nga xam ne yàlla mi ngi ko koy teg di ko jaaree ci kaw ay buur yoo xam ne ci ñàkk maandu ak jaay doole rek lañ ko teg euh, ndax bu fekkee jëmm dafa yegg ci ay at a ngi nii ñu aaye ko mu génn réew mi mun a génn lu ëpp ci buy doxantu police ak gendarmerie danañ ko topp te balaa ñu faa jóge boo muytuwul danañ ko sànni xeeti lacrymogène euh, wala ñu toj ab otoom wala ñu fekk ci mbooloo mi mu àndal tiire ca nit ñi gaañ leen ñi gën a bari ci ay xaritam ak am di jàmmam ñu ngi ñu tëj ci biir kaso yi ñenn ñi song nañ leen yàq seeni alal ñenn ñi téye nañ leen ca bitim réew ñemewuñoo teg seen tànk ci biir réew mi ñi nga xam ne doon nañ jéem a dajale alal di ko ko jox ñooña ñu gën a bari ci ñoom tey ñu koy wax Kopar Express euh, ñu ngi ñu tëj ci biir kaso bii ngir ne yéen a ko dajaleel alal jox ko ko dem ba àgg ci ab médecin sax bu la tëralee ci hôpitalam wala mu ñëw sa kër di la jéem a seet sa yaram di la ko fajal su noppee dana ci am jafe-jafe ak yoon ngir jéem gim la doon jéem a faj euh, àgg ci mbooloom ñi ngay àndal ku ci am place bu fes ñu xam ne fii ngay liggéeyee danañ la gannaawu guddi toj place ba jëm jëmmu fekk na ma fii ne ma otoom bi buñ ko tojee weer bi man dañ koy indi sama place ñu di ko defaraat place ba ay ndaraana fa ñëw toj ko ngir jëmmi maa koy defaral otoom nit nag bu fekkee ku la jox xaalis ñu jàpp ko ku la faj ñu jàpp ko bu sa oto yàqoo sax ko defar ñu jàpp ko yaakaar naa ne yàgg ngeen a dëgg dégg nit kuñ teg fitna ak nit ku ñuy xeex waaye xeex bu yegg foofu moom yaakaar naa kenn mosu cee mosu koo dégg ci nopp kenn mosu koo gis ci ay bët loolu nag tey jii itam ci ëpp ci ñi àndandoog moom lu ëpp ci ñeenti téeméer jëm juróomi téeméeri nit ñu ngi ñu téye ci biir kaso yii te defuñu lenn lu dul boo toppoon dëgg dëgg def mooy bëgg ko bëgg ak xaañ ràññeeku ci li ànd ak moom loolu nag bu amee tañ di ay jullit euh, nekk ci réew mi yaakaar yàlla te yaakaar ñaan toog di ko seetaan su boobaa euh, dañuy wax ne boo bindoon saytaan bindu seetaan benn lay doon saytaan ci biir seetaan la nekk maanaam seetaan fekke mbir am loo ca man ci dénoncé ko man raa minkum munkaran mun ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee boo gisee aw ñaawteef da koy xeex bam dañ soo ko munta xeex nga xeex kook sa làmmiñ boo ko mun xeex ak sa làmmiñ nga xeex kook say bët euh, sa sa sa xol ñaawlu ko yaakaar naa nag suñu doole xëy na mayuñu ñu ñu teggi nattu yi ñu koy teg ak tooñ gi waaye suñu làmmiñ nag toll nañ ci man koo dénoncé ci suñu làmmiñ waaye itam delloowaat yàlla mbir mi diisaat ko ko ba mu yëg ne euh, ñun day biñ fekkee tooñ gi itam participer nañ ci dénoncé nañ ko te suñu làmmiñ te it euh, wéet nañ suñu ruq ñaanal ko yàlla loolu moom euh, laa doon jiital ngir ñu xam li sabab euh, ñaan gi ma wax na nañ ñaanal réew mi waaye nañ ko ci seppi ñaanal ko ndax ku yàlla dogal ngay ab jullit te bëgg dëgg te yàlla may la xolub maandu ba boo gisee dëgg ak caaxaan itam man koo peese ràññee ko di nga yëg ne Ousmane Sonko mii nekk ci fii ci Sénégal di doomi Sénégal ñi ngi koy teg tam jiite parti Pastef ñi ngi koy teg moom ak waa parti loo xam ne maanaam danañ tijj ay téere di jàng histoire ñu naan doon nañ tooñ diw doon nañ tooñ diw waaye àgg ci tooñaangeem fi mu egg loolu nag wax dëgg yàlla bëriwul lu ko nit di dégg wala lu ko nit di gis ndax koo xam ne wax naa ko léegi médecin bi lay faj boo demee ci hôpital médecin bu la tiim wax ak yow rek maanaam ba mu noppee yoon woo na ko teg koy jafe-jafe sab oto koy gaare wala ñi lay abal oto wala ñiy ànd ak yow kenn ku ci nekk maanaam ma nga ci loxol yoon ñu koy tegi jafe-jafe àgg ci ku la jox ku la lijjanti weccet sax ci xaalis jox la ko sax nga am jafe-jafe sa parti ku ci bokk ba fis ci tey jii mën ngaa wax ne mbooleem coordonnateur yi Pastef yëpp ñu ngi ci kaso bi loolu nag dafa nekkut loo xam ne dafa war a am ci am réew ay jullit fekke ko ay nit fekke ko ba noppi kenn ku nekk di maandu ñàkk a maandu maandu maan wax naa ko léegi saytaane saytaan ak seetaan benn la boo seetaanee rek yaay saytaane ngir nag dañ koy def ngir ñàkk a bañ a seetaan ndax bañ a doon seetaane moo tax ñu di ci dugg liñ ciy duggee nag mooy fukki fan yii ñu jëm muy bisub alxames bii ñu jëm nii di la treize ci guddi ga mooy bis bi nga xam ne euh, waa kër Serigne Touba ci lañ jàpp laylatul xadar di ko woote ñu bëgg nag buñ ca tàmbalee ci bis boobu rek dem ba àgg ca fukki fan yu mujj yi wala ca vingt-septième jour ba nga xam ne ci la euh, suñu mbokki tijaan yi jàpp laylatul xadar muy diggante ñaari laylatul xadar yooyu dañoo bëgg képp ku ko man ci daaray alxuraan yi ñu jàng cent onze kaamin looloo tax ma di ko yaatal ngir bëgg balaa juróom ñaari fan ya mat maanaam bu ñu ko sot sotoo ñun surtout waa Modab ak képp koo xam ne dëgg ñor na la wala am nga yërmande wala am nga bëgg nga jàppale Ousmane Sonko wala bëggoon boo amoon doole teggi nattu bi ñu ngi lay ñaan nga bokk ci lii ñuy ñaan muy ñu jàng cent onze alquran kaamin alquran ba mu yegg euh, cent onze nag ku ne xam na ne moo tolloog li mu yaa kaafi mooy yàlla mi nga xam ne mooy aar mooy fekk suñ jàngee alquran ji niñ koy jàngee nag mooy ku jàng rek danañ joxe fii ñaari numéro yoo xam ne danga nga cay woote nga ne jàng naa wala jàng naa nangami kaamin ñu bind ko ba mu mat cent onze kaamin bu nekk tamit nañ ko tëje quarante yasin ak yaamun muntaqimu mille cent onze waaw kaamin bu nekk nañ ko tëjee yaa muntaqimu mille cent onze euh, am mu ànd ak quarante et kaamin bu nekk bu dee nag ñi nga xam ne yàlla dafa dogal nga nekk bitim réew wala nga nekk ci kii yoo xam ne mënoo jàng alxuraan ñi ngi lay ñaan lu ko tàmbalee alxames ji ba baa ñuy wari bis bu nekk nga liggéey yaamun mun taqimu mille cent once muy yàlla yow mi nga xam ne yaay fayul ku ñu tooñ yow fayukat bi nga jàng yaa mun taqimu nga def yaa mun taqimu yaamun mun taqimu yaa mun taqimu mille cent onze té junni ak téeméer ak fukk ak benn soo koy def tamit da ngay tàmbalee fa gën a rëy muy junni bi ngay def tekki ci téeméer bi teg ci onze yi maanaam mille ngay njëkk a def teg ci cent teg ci onze soo noppee nga yéene ñaanal Ousmane Sonko yàlla tooñaange gii ñu koy tooñ ñi koy tooñ ñëpp yàlla na ko yàlla mi nga xam ne mooy fa moo mën a fayu yàlla ko yàlla fayul nga ñaan ko ci mun taqi mi googu 1111 su la neexee bu koor gi jàllee nga wéyal ko di ko def ñaanu ku ñu la euh, yaasin bi tamit képp koo xam ne yoroo daara mënoo jàng 41 yaasin tamit ngi lay ñaan rek nga tàmbalee benn euh, ba 41 ba 41 yi jërul weesu su neexee bis bu nekk nga jàng benn ba keroog muy mat 41 ndax yonent bi moo waxoon ne yaasin li maa xure maanaam loo ko jubale rek ci lay jublu ñu ñaan yàlla mu aar Ousmane ko te sàmm ko te sàmmu njabootam sàmm ay soppeem ak i xaritam ak i partisan képp koo xam ne da leen di tooñ itam yàlla na yàlla taxaw ci place fayul ko ba bëccëgu ndara kàmb ba ñëpp gis fayu gi képp ku jëlati doole wala jaay doole wala ay wute wutali ko ko itam te nga xam ne jaay doole ko ay rek moo tax nga jëmale ko ko yàlla na yàlla dëpp ay wa jëmale waat ko ci sa kaw jëmale ko ci sa kaw ak njaboot loolu ngeen ñaan ko waaw ngeen ñaan ko ndax yàlla moo wax ne laa yuhibbu bu al-jahra bi illaa man zulima <coughs> laa yuhibbu llaahu al-jahra bi soo'i min qawli illaa man zulima maanaam am na yoo xam ne bu fekkente ne dañ laa tooñ suñ borom ay maanaam limite ba day dañ te it wax dëgg yàlla nii ma ko jiitalee wax ko lépp bëgg wax ne rek nekkuñu di wax di wax waaye mbir mi ab réalité la bu leer naññ boo xam ne ko say seetaan ko seetaan ko maanaam seytaan la ñàkk ce dugal sa sa dara kooku seytaan la kon nag ñu ngi ñaan daaray alxuraan yi Touba Tiwaawoon Kawlax Njaasaan képp koo xam ne forcé wuñ kenn nag waaye ku ko yàlla man loo daal tam wóor na leen man nga cee jàpp ñu ngi lay ñaan di ko tàmbalee alxames jeudi bii ñu jëm ñu tàmbali alxuraan ji tàmbali yaasin yi tàmbali dog yi di ko liggéey ba keroog muy mat incha allahu taala fi léegi ñi balaa fukki fani koor gu mujj gi daal dana mat bu soobee yàlla bu matee itam ñu ñaan ci yaa mun taqi mu bet képp ku ko liggéey boo noppee rek na nga ñaan yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo am kàttan te a fayul nit yàlla na yàlla fayul Ousmane Sonko tooñ giñ koy tooñ di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa waaw léegi kon euh, képp koo xam ne ma rappelé waat ko rek dañu bëgg ñu jàng 1111 kaaminu alxuraan mille cent onze kaamil yi ñu ngi koy tàmbali jeudi le treize bëgg koo xalaat jeudi ba ca topp nga xam ne ci juróom-ñaari fan incha allah euh, danañ ci dugalaar laylatu xadar yu murid yi lay mu nekkaale laylatu xadar tijaan yi waaye fukki fani koor gu mujj géet ñi làmbatuwaale ji rek euh, ñaan ci yàlla muy cent onze kaaminu alxuraan ci une semaine boobu ñu ci ñaan ndimbal mbokki daara yi képp ku ko mën boo jàngee rek nga wooñu ci numéro yi ñuy bëgg a joxe boo ko defee yëgal nañ jàng nañ bu dee benn bu dee ñaar bu dee ñett ñu noté ko ba nga xam ne 111 yi dina mat lii moom 111 nag li ñu ci jublu mooy kaaf yi muy yàlla yow mi nga xam ne yaay fekk kaamin bu nekk tamit su yeggee maanaam be bu doon dangaa jàng fukki kaamin it kaamin bu yegg kenn ci yéen wala ngeen séddoo ko ca mbooloo ma da ngeen di jël kurus ngeen def yaa mun cent 1111 mille cent onze yaa mun taqimu da ngay njëkke mille yi teg ci cent yi doog cee teg onze yi noonu lañ koy defee soo noppee tamit ñu jàng quarante et un yaasin maanaam kaamin bu nekk day ànd ak mille cent onze yaa ak yaa mun taqimu ànd ak quarante et un yaasin soo noppee signalé ni daal jàng naa ko mu ngi nekk numéro yi mi ngi nekk 77 093 21 53 77 093 21 53 wala nga def 77 854 32 25 77 854 32 25 ñaari numéro yi boo ci wootee rek daal di yëgle ne man la diw jàng nañ benn kaamin wala jàng nañ ñaari kaamin dinañ ko noté bu matee incha allah dinañ ko message ñëpp yëg ne mat na ñu bokk jàng xatmu bi ñaan bu fekkee nag ki nga xam ne yàlla dafa dogal moom amul euh, mën a wàccee ab kaamin ba mu yegg su ma nee sóoratu yaasin ñi ngi koy ñaan benn ba 41 lu mu ci man rek na ko def ci une semaine boobu bu fekkee koo xam ne itam moom mënta tiim ab téere di jàng alxuraan mënta wàccee euh, kaamin mënta jàng yaasin nit ñi ngi koy ñaan mu jël kurusam mu liggéey yaa mun taqimu 1111 diirub fukki fan koor gu mu gi yëpp su ko neexee itam mu di ko yeggale yaa mun taqimu nag li muy firi mooy yow yàlla mi nga xam ne yaa am kàttanul mën a fayul nit ñi ngi lay ñaan nga fayul nu am loolu lañ ci jublu fayu gi nag maanaam wax naa ko ñaan gi nag li ñu ci jubluwaat rek mooy dañoo nekk ci réew nekk fekk suñ mbokkum jullit buur di ko teg loo xam ne teguwul ci dara loo xam ne yoon la lu dul jaay doole jaay doole gi nag bu ñu ko waxee mi ngi tàmbalee ci koo xam ne ay at a ngi nii doo mën a génn sa bun euh, réew mi nga nekk dañ la fee téye ñu jóge ca ay yooni yoon mënoo génn sa kër boo bëggee génn yaag say doom da di ñaan pour ñu bàyyi leen ngeen génn julli ji jumaa aaye nañ la ko julli aaye la lépp te loole amul wenn këyit bu koy notifié amul lenn luy wéral ne lii daal du jaay doole kon liñ ko mën a jàppe mooy ak tooñ la akuk jaay doole buñ ci jógee ñu gis buntu këram ñu koy tëj di fa dóori lacrymogène bis bu ne loolu senegal gépp a koy gis jóge ca lu ëpp ci ay nawleem yi muy àndal nga xam ne ay xaritam lañ ay bokkam ñi ngi ci kaso bi lu ëpp juróomi téeméeri doomu aadama 500 personnes yoo xam ne ñi ngi ci prison bi te amul kenn koo xam ne daañ ne daa sàcc wala daa rey nit euh, ñenn ñi sax gis ngeen ñu jël ay lami bracelet yooyu nga xam ne day mel ne da ngay jàpp nit ki jàmm jël ko takkal leen ko te amul benn délit yéen ñi toog boo xam ne mën nga ne wax ne Waly Diouf Bodian wala Pa El Hadj Malick Ndiaye mu def ku leen ko laajoon du ngeen ko wax maanaam du dul rek ay humiliation ak ay jaay doole nañ ci maam Paate Mbay ak aadama Ndiaye ak keneen ku ñuy wax jong ak ak euh, Cheikh Thiam nga xam ne Cheikh Thiam ak Sonko ba ñu xamante booba Ousmane Sonko benn néeg la yor ca parcelle di fa fanaan ñu ànd bu demee ba tey ji usmaan Sonko toll fi mu toll ñu ne ko da koy bàyyi wala ñu yàqal la defe naa ne loolu jaay doole la ñoom ñii ñëpp ku ci nekk otom ndëraan ñëw na ba ci sa place mu daaneel place ba dem te teguñ ko fenn nitu fi wuñ leen wenn këyit wuy wane ni lii buura ko dogal lu dul ak jaay doole ay nit yi nit yoo xam ne dañoo séq ak Sonko jàmm dong ñu ngi bitim réew kenn ñemewu cee teg sa tànk fii ci réew mi ndax boo ko fi tegoon mën naa am doo delluwaat te am na ñu bari ñu teg seen tànk ci réew mi ñu daal leen di jàpp ku mel ne ay ñoom Hannibal Djim tey ay ñoom sëñ Assane Mbacké ñu baree bari boo demee ci kaso yi ñi nga fa toog te defuñu dara lu dul di ànd ak Ousmane Sonko loolu nag bu yàlla dogalee ñu nekk cim réew di ay jullit di ko fekkee toog di ko seetaan ne suñu yoon nekku ci dama ne boo bindoon seytaan bind seytaan benn la kon seetaan ko damay jàpp ne day day am day nekk benn tànk sax ci seytaan ngir daw nag seetaan seet nekk seetaan moo tax fa suñu yéen a nekk ñoo xam ne dañuy euh, seetaan mbir mi dañuy ciy dugg dugg bi nag mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo wax ne su ngeen ma woowee ma wuy si leen te su ngeen ma ñaanee ma may leen yonent bi nañu bu ngeen dee xeex ngànnaay li nga xam ne moo mat ngànnaay mooy ngeen jël ak ñaan def ko muy seen ngànnaay te ñun nag jàpp nañ ne ay jullit lañ looloo tax ñuy woo ñëpp ci ñu jàpp ci fukki fan yii ñu ñaanal Ousmane Sonko suñ borom aar ko aaru njabootam aar alalam aar projet am aari bëgg-bëggam aari militant képp ku koy tooñit yàlla na ko yàlla fayul képp ku yanu aw ay wutali ko ko yàlla na yàlla dëpp ay wa na mu tollu mu delloo ko ci sa kaw delloo ci sa kaw ak njaboot loolu ni koy ñaan ku ko yéene jàmm it yàlla na ko ci jiitu waaye ku ko yéene ayit yàlla na ay wa tëpp këpp ci sa kaw ñaan leen ko ci alxuraan ñaan ko ci turu yàlla ñaan ko ci sóoratu yaasin def ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.